sunu ànd bi am na ñu mu am na ñoo na ne seen sax dëkkuñu commune Diass mais c'est la personne de Mamadou Dione qui les dérange koo ëpp lu mbokk mënoo ko jëw ñi doon jéem en 2014 pour tasaare yi ba léegi bàyyeeku te je veux très clair ñi doon jéem 2014 pour tasaare APR fii ci commune Diass ba léegi bàyyeeku. waaye dañu xamul nu àdduna di dox sax ñaari message boobu di lancer ñooñu di leen xamal nous ñun dañu sincère dans notre compagnonnage avec le président de la République dañu sincères dans notre engagement pour la commune de Yes dañu sincère li ñuy def na li def dañ ci pour suñu commune pour suñu politique

nan mayor cadre président de la république wala mayor yor kàddu Benno Bokk Yaakaar ci département ba élection yi ñu jëm président de la république ak conférence des leaders de Benno la ñuy def wax nañ ko bind nañ ko nee les choix au niveau des localités seront modifiés damay ku déggul tubaab ku déggul tubaab ne ko waxam de boo lire la déclaration de la conférence des leaders les deux derniers paragraphes les choix seront des choix objectifs et motivés motivé nag bu Mathématicien mathématiciens et la la motivation la justification elle est d'abord mathématique et mathématiquement on va gagner ces élections à 80% ici dans le pays ñoo xamante de bu am na ñoo xamante ne xew xew yi day am boo xewoon xew yi da ngay xam xew yi ba léegi nag dama leen di junj ñooñu ndax junj dana borom xel waaye nag ku xamul buur saay la boo dëgëree bopp tuuti dinaa la wax buur kadaabare la benn waaye def ne ma gars yi da leen bàyyi ci biir effectivement dama leen di bàyyi ci biir ndax président de la république bi muy dem élection 2019 la jël ne leen yeneen samay porte Sénégal ba mu yëngoo jamono yooyu passé au mois de mars am na ñoo xamante ne même biir nekk ñemewuñu fa woon joxe seen xalaat am na wala amul ku ànd ak njiitu réew teel a kooku kan nga gëm man de ba may jël sama oto di dem ci plateau yi di défendre le Sénégal di défendre le président de la République di défendre la République ani ñooñu où est-ce qu'ils étaient am na ci sax ñenn ñoo xamante ne xëj na li leen naqari xam naa ndax ñenn ñi dama leen njëkk a dégg ñenn ñi dañu defe ne ñoo ma ëpp mérite politique te yàlla xam ne ëpp ñu mérite politique motax ñooñu laa bëgg ñu def seen bopp ne fii jas mokk na lu mbax ndax lii ñu am ñoom amuñu ko dans leur commune kon na ku nekk yem sa commune man dugguma commune kenn li ngi def ñu déglu conférence des leaders li ngi def ñu def liggéey bi ci war ndax y' a pas mieux informé que le chef d' état y' a pas mieux informé que la République